waaw waaw jàpp nañ ko ah parce que aussi ak lu mën a doon ay sénégalais ah moom lañu am moom la ñuy ndamoo li ci nag moom ñoom ñoo ñu war a dimbale quoi. waaw souvent man damay wax ne man li ñu yóbbu li Aliou yóbbu moom bu ko yóbboo bu bu jëlee kan bi miracle la si ñun daal si man miracle la. bon bu ñu xoolee valeur joueur yi mun nañ jël trophée bi mais eh, bu ñu gisee d'après li ñu waneegul euh, danañ ci am ay jiixi jaaxa daal. bon équipe bi mën na jël trophée bi équipe Sénégal. amul lu ñu mënul gagné. Sénégal oui parce que am na ay joueurs yoo xamante ne ne baax nañ macha allah parce que sa axe baax na sa milieu terrain macha allah attaque bi yaa ma ko gën a xam mais Sénégal euh, li ma li ñu war a bàyyi mooy que ni di bàyyi gars yi di fubal seen kaw. Sénégal mun na gagné ku ne parce que li mu regorge de potentiel joueur kenn amu ko ci Afrique maintenant nag pour loolu aboutir à à une finale de coupe de coupe d'Afrique. mooy que ne nit ñi bàyyi liggéeyante bi gars yi bàyyi liggéey equipe bi. waaw mën na ko mën na koo mën na koo jël trophée bi mais li tax muy mën a jël trophée bi gars yi gën a yokk maanaam maanaam ñaan yi ah jàppale jàppale leen bu baax a baax a baax a baax. gaal amul ku mu mënta dóor ndax effectif bi nu yor ci Afrique fii gisuma kenn ku ko fi am. équipe bi moom des na moom pour jël trophée